kon barab bii ñu nekk moom mooy actuel laboratoire de sang de Saint-Louis en même temps moom mooy banque de sang bi euh, waaye bu ñu xoolee li ñu dajale ci barab bi du wàllu deret yi nekk fii dafa doonoon ci benn ci place yi nga xam ni moom la Serigne Touba jaaroon li ma la waxoon sànq dafa am ñaari pàcc pàcc bi nga xam ni bañ koy jugé ba pare la fi ñu jógee léegi di jardin d'essai ba mu bañ koy jugé ba pare la fay soog a dem fii nag avant ñu koy jugé la sëñ Touba ba mu wàccee ci saxaar si le 12 août 1895 bañ koy yóbboo fee nga xam ni mooy l'école des fils de chef li ñu gisoon foofu moom mooy bërëb bi dafa jige woon gaar bi bu murid yi ñëwee ñu joxañ leen batiment bi ñu nekk foofu commencé di fa wettiliku di yëkkati xasida yi di kuréel di ko dégtal Cheikhul Khadim ñu gis ni progressivement foofu mi ngi xaw a bëri gan di xaw a xumb ci xasida yi ñu yëkkati ñu toog ba si yàgg mu xawoon jege benn marché bu fa ne ñu toog ba si yàgg ñu ni nañ ko jëlee fii yóbbu ko ci fi nga xam ni moom la kilifa tubaab gi am na ñu ne Merlin la waaye loolu moom dara ma si xam naa daal c'est une autorité coloniale qui habitait ces moom moo fi dëkkoon ba mu fi dëkkee moom ak ak soxnaam ak ay doomam ñoo fi dëkk taarix bi nag moom mooy fu tubaab mosaana dëkk nit ku ñuul mënta sañul romb ca bunt ba te mu autorisation da koy sori nele ndax ñoom mayewu ñu woon dara dara si seen bopp moom moo tax bañ ko indee fii ñu jàppoon ni day weet jàpp ni lañ fañ ko bëggoon lañu bëggoon mooy sori la ko ay ñoñam dinañ ko am bañ ko indee nag ñu koy tëj waaye comme que tubaab bi jabar ji médecin la woon jabar yi xool Serigne Touba xool corpulence am si zahir ni ko yàlla bindee mu gis ni Serigne Touba tawam yëpp ñu ngi koy passé si bind ci jàng ci julli mu ni kii wax dëgg yàlla xawma lan mooy seen problème ak mu waaye bu ngeen ko tëjee ngeen tijji ko moo ko gën ndax amul kattanu zaayir goo xam ni day dal si nit ñi di leen gaañ wala di wala dara te au moins bu ngeen ko bàyyee muy doxantu di dem ak a ñëw deretam di circuler mu nekk en bonn santé gis nga la mu yéene woon sañ Tuubaa naan nay dem di dem ak ñëw ñëw deretam di circuler loolu tax na hasardeusement de tey ñu jé fii mooy banque de sang fii mooy laboratoire de sang nga xam ni la xewoon Gabon fa Serigne Touba daan gas fukki dërëmam ya di ko fa suul moo doon ministère des finances waaye fii ñu ko yéene woon muy dox ak ñëw ndax deretam di circuler mooy laboratoire de sang de Saint-Louis moom mooy banque de sang bi nga xam ni ku bëgg deret wala ku am problème mu deret wala kuy saytu deret ju baax fii ngay ñëw kon Serigne Touba ku koy yéene rek na nga ko yéene jàmm kon nekkoon na fii daan doxee fii di dem fañ ko njëkkoon a téye muy école bii nga xam ne mooy école des fils de chef daawoon seeti Ahmed Khoury Sène di jàllanteek moom kàddu ci diggante bi daawoon na fi toog benn bërëb boo xam ne daañ fa egg ñu koy wooyee jàkkay zinc mais bu waññeekoo daawoon na jaarit fii nga xam ne en face Moïse Ambroise Gomis mi nga xam ne moo génn àddina yàlla na ko yàlla yërëm maamam moo dëkkoon fii ñaanoon tubaab yi ñooy bàyyi suñ tubaab it muy ñëw ci këram. di waxtaa di di di nekk ak moom foofu ndax moom moo amoon cofeel si Serigne Touba kon ci taarix rek mën nañ wax ni fii ci Ndar laboratoire de sang bii fii Serigne Touba dañ ko fi téewoon asalaamaaleykum wa rahmatullah